di nuyu bu baax aussi Pape Djibril ak képp koo xamante ni technicien la nekk biir TFM. jërëjëf Pape Djibril Fall maa ngi lay ziar. maa ngi lay dellu nuyu sénégalais ñi seetaan si biir réew mi ak si bitim réew di dalal bu baax sunu gan gi honorable Abdou Mbow. jërëjëf ñu ñëw euh, ca mm-hmm. la doon wax sànq euh, honorable Moustapha Diakhaté dàq ngeen ko ci euh, parti bi mm-hmm. lu waral lool. waa jërëjëf maa ngi lay sant bu baax di la gërëm comme ni nga ko waxee tey jii di 21 janvier. Euh, li ñuy wax commission discipline bu parti alliance pour la république dafa réunir. ñu ko hmm. seq nag euh, Abdoulaye Badji la moom mooy président bi Bournois Samb mi membre la ci man mi membre laa ci euh, Mbaye Ndiaye aussi membre la ci bien que réunion tey bi Mbaye Ndiaye nekk fi parce que dafa nekk bitim réew mais absent excusé la bi ñu réunir nag xam nga commission de discipline ku ko wax xam ne mën na am loo xamante ni mën na fa jugee comme. Euh, sanction wala euh, avertissement wala yooyu parce que ñun suñu dañu am statut. ak réglement intérieur bu suñu parti moo am ay articles yoo xam ne dafa wax ci wàllu taxawaayu parti bi ci ay discipline ak yeneen euh, moo tax ñun ci biir communiqué bi nga xamante ni génne nañ ko décision bi visé nañ ay articles maanaam article 3 4 14 ak 20 bi nga xam ne mooy nekk ci statut bi ak article vingt cinq ak vingt six pour règlement intérieur loolu bi ñu ko visé ñu ne nag xool nañ constaté toujours ci décision bi agissement maanaam doxalin. bi nga xamante ne nii moom la Moustapha di doxale ak ay propos maanaam waxit boo xamante ne nii jàpp nañ ne dafa doon loo xam ne dëppoowul ak noo xamante ne nii moom la sartu parti bi doxee bi ñu xoolee loolu lépp ñu ne xool fee yooyu yëpp ci la ñu jël décision bi nga xamante ni moom moo sanctionné tey Moustapha Diakhaté dax ko définitivement boobu tegu na ci yoon euh, waaw dàq ko définitivement parce que nee na créé wul mouvement politique mouvement bu mu créé juste pour woo ñi nga xamante ne ñoo bokk APR ngir ñu ànd ci biir xalaatandoo mu di manko taxaw xam nga loolu moom mooy waxtaa li mu wax ñun nag comme ni ma la ko waxee tegu na ci yoon mooy ce que sàmmonte nag sart yi nga xamante ni moom moo lal parti bi maanaam statut ak xam nga ñun moom dégg naa ko ci boppam sànq ci rajo bi may ñëw ci télé ki mu ne kenn entendre moom maanaam dégluwuñ ko mhm. euh, mu ne décision bi euh, légale mais damay wax ne xam nga kuréel gu ne dafa am na muy doxee moom dafa jàpp ne toujours peut-être bi ngi nekk PDS parce que PDS si règlement intérieur am dafa wax ne dañ ko war a entendre ñun suñu règlement intérieur ak statut dafa wax ne constat maanaam seetlu xool. Mm. loolu mooy li nga xamante ni ñun tey moom la ñu def muy benn. beneen bi mooy am na ñoo xam ne ñu ngi wax ne est-ce que euh, parce que ci règlement intérieur bi dañu wax ne euh, président moo war a prononcer sanction bi. mais dañu fàtte ne ci biir règlement intérieur bi tutul statut bi ci article 14. article 14 dafa wax ne. Euh, mu doon la parce que li ñuy def lépp dañu koy teg ci dëgg. Hmm. dafa wax ne ci alinéa cinq article 14 bu règlement intérieur dafa wax ci alinéa cinq mu ne aucun militant ne peut prendre des initiatives ou faire des déclarations au nom du président et pour le compte du parti sauf s'il est mandaté par ce dernier. loolu ci article 14 bu statut parti bi la loolu moo tax tey boo gisee commission discipline bi dañuy wax ne pour le président du parti. le président de la commission maanaam daf ko jox prérogative mu signer asson son nom que nag aussi lépp looy def rek ci àll parce que fii ay borom xel ak borom xalaat ñoo ci nekk danga koy teg ci yoon donc sanction bi dafa tegu ci yoon maintenant nag dégg naa sànq aussi muy wax ne kenn entendre loolu prévoir uñ ko ci ñun suñu règlement intérieur parce que parti bu nekk dafa am noo xamante ni noonu lay doxee dafa yaakaar ne peut-être mi ngi PDS ba léegi parce que man nekkoon naa PDS aussi xam naa nii parce que foofu dañuy wax ne ci règlement intérieur bi dañ la war a entendre nga am avocat booy ñëw ñun li ñu prévoir mooy bu ñu constaté ba sanctionné la te sanction yi yëpp dafa am avertissement blâme suspension de quatre à six mois wala mu am exclusion temporaire de six mois à un an wala exclusion définitive maintenant nag loolu su amee statut yi permettre na yow nga bind pour demander grâce pour que ñu ñëwaat ci décision alors man sama question ci sama question toujours sur toujours ci article 26 bi la mooy sanction yi mhm. léegi <clears throat> lan la nit ki di def ba tuddu blâme mhm. lan la nit ki di def ba nekk avertissement. Uh-huh. ak à quand ban moment lañ koy blâmer. Uh-huh. ban moment lañ koy avertir. Uh-huh. ban moment lañ ko war a exclure de un wala suspendre. un six mois à un an. ak ban moment lañ ko war a dàq ex définitivement lan moo waral. tax ji ak ban acte la posé. bu jar ngeen nekkoo ko dootoo bokk ci suñu parti. waa xam nga article vingt cinq. Mm-hmm. dafa wax ne la discipline dans le parti est une exigence envers tous les militants. Mm-hmm. maanaam discipline. dafa war militant yëpp. nan ngeen di définir discipline. waaw da nga may laaj rek. beneen bi mooy. da may déglu ma tontu la bu baax. ci li nga ma laaj parce que du benn phrase la. damay def pàcc par pàcc. mais dama lay relancer pour mu gën a leer. waaw relance bi mooy bu fekkee ne wax naa lu leeragul mais pareegu ma. su ma paree nga relancer. non comme comme wolof la da nga déglu ma rek adhésion mm-hmm. formelle. dañ ne les initiatives mmh. et actes de nature à entacher l'image du parti sont formellement interdits maanaam wax ak jëf yoo xam ne dafay yàq deru parti bi dañu ko interdire te xam nga ñu ne les contrevenants à ces dispositions sauf cas de légitime défense peuvent faire l'objet de sanctions disciplinaires xam nga loolu su ñu ko waxee ba pare ñu nome ay nit ñu nekk ci commission discipline bi ñoom nag ci parti bi ñooy xool la nga xamante ni rafetul ci parti bi la nga xam ne day yàq image yu parti bi ak la nga xamante ni jàpp nañ ne lii dañ koy tere dama lay jox benn exemple xam nga tey jii par exemple fii di TFM yéen ngeen nekk fi am na loo xamante ni noonu lay doxee mais am na loo xamante ni par exemple yow mi nga xam ne yaa nekk ci biir. yaa xam lii baax na baaxul xam nga par exemple en journalisme. ki nga xamante ni mooy non non non non non exemple yi baaxul parce que li entreprise privée la association. non déglu exemple baaxul règlement intérieur moom. benn exemple baaxul. c'est li may wax. moom du ngeen ma ko wax man maay xam li ma xalaat ne loolu laa bëgg a wax ngeen wax ko maintenant nag seen commentaire <laughs> c'est libre dama ne. TFM am na règlement intérieur la muy bañ ña nekk TFM xam nañ ko. ñun li parti bi di bañ mooy loo xam ne day yàq deru parti bi ñi ko mën a apprécier nag dañ leen a jël ñu doon ay borom xel mooy ñun ñu nekk ci commission discipline. Mm-hmm. ñu jàpp ne Moustapha Diakhaté xam nga li ñuy wax ci tubaab dafa leer dañ ne agissement et propos mm. séditieux. Mm. fractionniste et récurrent. séditieux mooy la parce que mooy loo xamante ni nii d'abord. dafa nekk lu contraire ak la nga xamante ni nii moom mooy idéologie parti ba fractionniste mu doon loo xamante ni nii dafa nekk loo xamante ni nii dëppoowul ak yoon wa nga xamante nii moom la parti bi jël. Ah, déglu ma rek ak li nga xamante ni récurrent maanaam di ko. di ko def bu baax a baax xam nga loolu. ñun bi ñu toogee ba apprécier. xam ne lii baaxul ci image parti bi ci lañ jël la décision maintenant c'est légal ou c'est pas légal loolu ku ci nekk. non xam nga sédition bi ñu wax. mais séditieux. bu fekkee ne dañuy jox mooy sens. ndax ñi ñuy seetaan man parce que wolof bi des fois souvent pour nga euh, di euh, ah. xam nga euh, en général ñun. Ah. pour nga jël français traduire ko wolof dafay xaw a. Ah, jafe moo tax ñu bëgg la dëbbale tuuti. absolument tout à fait léegi dañu wax ne man li li ñu bëgg a xam mooy. Mm-hmm. ndax Moustapha Diakhaté. Mm-hmm. dafa def wala mu loo xamante ni. ci passé bu yàggul dara Moustapha Cissé Lo daf ko deful. loolu première dama lay wax benn affaire ma tontu ci loolu baal ma nga ah, ci allez <laughs> léegi beneen bi mooy. Mhm. damay revenir ci question bi. Mhm. d' abord lan mooy discipline. de mhm. parti. beneen bi bi ci tegu mooy dañu wax ne su nit ki defee ay propos. yoo xam dafay entacher l'image du parti. dafay yàq dafay ñaawal. parti bi ni muy doxeek yooyu. ñu ne mën nañ ko blâmer. wala ñu avertir ko. wala ñu exclure ko. wala ñu suspendre ko. Uh-huh. lu toll ci juróom benn weer. wala exclusion temporaire. ba benn at wala exclusion temporaire. Uh-huh. tey ci mbir mi xew ci Moustapha Diakhaté uh-huh. exclusion définitive. absolument da ngeen ko génnee directement. tout à fait moo tax ma ne ci loolu lan ngeen def ci bu nit ki defee lan lañ koy blâmer. bu nit ki defee lan lañ ko war a avertir bu nit ki defee lan lañ ko war a suspendre. ak bu nit ki defee lan ci lañ na ko waroon nag yow mënatoo fee nekk. xam nga tontu la nee la. Mm-hmm. gravité li mu def. Mhm. ñi koy apprécier. Mhm. mooy commission discipline bi. loolu moo tax donc c'est subjectif. amul objectivité déglu ma am na objectivité bu wóor. objectivité bi lan la parce que déglu ma objectivité bi xam nga mooy mhm. mooy l'appréciation que les membres de la commission de discipline def nañ ko ci fee yi ñuy def dama lay jox benn exemple. xam nga Moustapha Diakhaté dégg nga ko. barki Dembo Ndiaye. mu ne mandat président. bu parti bu parti bi à la tête de l'Alliance pour la dafa illégal. ma dafa wax ne dafa jeex. waaw dafa jeex wuñ ko waaw loolu nag du dëgg démb. Mhm. génn naa document. mun mhm. naa la ko wan léegi. Mhm. boo xam ne le 30 novembre 2018. ak léegi xam nga matagul ñaari at. ci la ñu def conseil national man ab Mbow mii di wax. maa lire résolution ba. ñu transformer suñu conseil national en congrès ordinaire waaw déglu ma. Hmm. ñu fal. président Macky Sall président APR. 2018. 18. mandat bu njëkk bi kañ la commencé woon déglu ma la mandat bu njëkk bi kañ la tàmbali woon 2018. ci diggante bi daf ci am ñaari mandat te ñun bul fàtte 2008 la ñu fal xam nga 2008 ak 2018. matul 10 ans. Mhm. wala 10 ans ci la yem. ci la mat ci donc ñaari mandat boo ko fa defee xam nga loolu mat na. waaw déglu ma rek déglu ma dag maa laaj dama lay tontu 2018 ak léegi ñaari at la donc loolu xam nga ne amul muy benn. ñu génne ay këyit lu leer yoo xamante ne lii moo am xam nga loolu. Mhm. nekk na loo xamante ni lu mu def ñëpp xam ko nga dégg bërki Dembo Ndiaye. mais oui la gravité bu fekkee dafa juum. ñen ñen ne ko da nga juum. attends attends la gravité xam nga mooy lan. waaw ñu wax dafa juum mu génnaat ca suba ga. ne d'abord noo seulement li muy wax loolu mooy dëgg ñun. dañuy li ñuy wax sañu ma sax wax kii bi parce que dégg naa ko mu waxaat léegi parce que man am naa cir boo xam ne ak sénégalais yi am na moo yoo xam ne duma ko utiliser wax dëgg yàlla. léegi nii déggaat naa ko ci rajo bi mu waxaat loo xamante nii man. am naa kersa waxaat ko fii ci donc juste pour dire que l'appréciation l'appréciation l'appréciation de loolu dama la jox rek un exemple par rapport à d'autres xam nga yaa ngi dégg ñuy wax waxu mouvement. ak sauf que la gravité sauf que la gravité. la gravité nag euh, Pape Djibril. waaw yow mënoo koo xam ndax bokkoo APR. Mhm. mënoo koo xam ndax defoo politique. Mhm. mënoo koo xam parce que parti bi li mu wax déglu ma rek li mu wax à part lecture bi ñu ci def. amul benn appréciation objective. boo mën a def par rapport au propos bu nit war a mën a def li nga mën a def kay mooy. mooy non xel mën na nangu. am na lu mu wax loo xam ne xel mën na ko nangu. maanaam maanaam ma àggale. su ne mandat électif bu président APR dañ ko war a leeral. Mhm. foofu nit ñi mën nañ dégg ñaata la war a nekk wala combien de temps la mandat bi mhm. war a durer.